Mouhamed benn Diop euh, ñu ngi lay nuyu. nga bokk ci euh, kuréel bi nga xam ne moo tënk candidat ñu bëggoon dem ci jongante élection présidentielle euh, te ñu conseil constitutionnel daal leen tëye nga jiite itam coalition Pass Pass. Mhm. d'accord waaw euh, loolu loolu moo moo moo am euh, sama mbokk ci euh, kuréel googu comme ni ngeen ko xamee man la ñu tuddee le cas zéro parce que bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu téye sama candidature ci wàllu parrainage yi dañ ne ma wala ma lu bëri ci samay parenage nekkuñu ci fichier électoral bi bañ ko tekkee di saytu man sama wàllu bopp en tant que candidat de suivre processus électoral bi yëpp dañ ne ma bokk naa ci ñi xam ne ni gisuñu leen ci fichier électoral bi mu nekk loo xam ne lu doy waar la. d'accord ndax élection yi ñu jàll voté woon naa. te mu aw ma benn jafe-jafe ak yoon bu war a mën a tax kenn du gis ci fichier. d'accord daan nañ ci delloo ci kanam euh, laaj bu njëkk bi euh, candidat yi nga xam ne dañ leen euh, téye ci élection yi maanaam conseil constitutionnel la da leen recalé. yéen a ngi doon amal ab ndaje ak président Macky Sall ndax yow bokkoon nga ci dem ci ndaje boobu. waaw bokk naa ci ñi demoon ci ndaje boobu te bu ñu jàkkaarloo président tamit euh, bokk naa ci ñi jëloon gàddu ngir euh, leeral ko li nga xam ne moom jafe-jafe yi nga xam ne nañ ko euh, ci wàllu parrainage yi damay fàttaliku nit ñi rek ne ko bi ñu koy bind bataaxal bi ñu ko bindoon ci fukki fan ak juróom ci weeru janvier nga xam ne boobu laata conseil constitutionnel dañ génnee liste définitive candidat yi war a bokk ci élection bi li ñu ci jublu mooy moom en tant que chef suprême de de de de la magistrature mu nekk loo xam ne danañ gis yenn yenn euh, mais yenn manquement yi nga xam ne conseil constitutionnel def na ko lu jëm ci wàllu élection yi ndax euh, dañu war a mën a boole candidat yëpp ci benn euh, ci ci boole leen sur un pied d'égalité ma nga xam ne tey képp ku ci nekk dina mën a concourir ba ay axam ak axax yelleefam kenn du ko jalgati. Hmm. loolu ba mu amee ñu bind ko teelul teelul tontu. te boo fekkoon lu wër au niveau des partenaire au développement union européenne société civile dem seet tamit yenn xalif euh, yenn chef religieux yi kon dafa jaadu woon ci ñun tamit ñu bind ko ne ko lañuy la ñuy ñaxtu ci biti lii la doon kon dañ lay wét jébbal bataaxal bi nga xam ne moom mooy wax li nga xam ne moom mooy suñu ñaxtu tey hmm. ba ñu defee loolu nag yàlla dogal mu bàyyi ba ba ba démb waxuma bari ci dem ci la ñuy doog woon ne bëggoon na gisante ak ñun démb ngir ñu mën a toog waxtaanee loolu yëpp te looloo waraloon suñu jotaay moom. Mhm. ndax euh, seen xel dal na ba ngeen génnee ci boobu leen ndaje ndax du woon perte temps selon vous. waaw du perte temps parce que euh, xel xel du bañ fay dem amoon nañ xel bu dal déjà. parce que mhm. fekkoon na boobu processus électoral bi nekk loo xam ne avancé na liste bi génn na nekk na loo xam ne tey mënoo woon ñu ne kon euh, gannaaw du njiitu parti politique moo ñu woo wante njiitu réew mi moo ñu woo te yun def bataaxalam ci liy màndargal ne njiitu réew moo la soxla buur bu la soxlaawee munoo lu dul nga dem wuy ndax ku la woo bu la waxul jox la mm-hmm. ba ñu demee tamit déglu nañ ko bañ ko dégloo déglu nañu mais bañ ko bañ ñu dégloo ba noppi ba ñu wax ko lu ñu metti yëpp xamal nañ ne ko ne fi mu toll ni amul leneen lu ñuy sàkku ndax xam nañ ne béy wees na muus hmm. wante li ci am solo bu am solo mooy ci ginnaaw ñun ñàkk fonk suñu ak ak yelleef dañ ci yóbbaale lu toll ci million ci ay doomu Sénégal yoo xam ne ñoom ñoo ñu jox seen ay parrainage amoon kóolute ñun ngir ñu ram ñu mën leen euh, féete foofee hmm. kon tey bu ñu waxee ne ñooñu ñëpp nekkuñu ci fichier bi dafay baax kon ñu mën a assuré wu ba ñoom bisu vote bi bés bu ñu demee ñu mën fa fekk seen tur mën a voté comme ñëpp ndax mhm. nañ jàpp ne ne ñoo ñuy def loolu yëpp ci opposition lañ nekk te bés bu ñu xañee loolee ci ay voix ci opposition xëy na tey tey camp bi ñuy jàkkaarloo muy tey jii le camp du pouvoir maanaam dinañ leen dérouler tapis rouge ngir mu mën ñu mën a gagné élection yi ci ci ni mu gaay te loolu la ñuy loolu la ñuy xeex moo tax ñu ne kon dinañ ci wax ak moom ba telle sorte que sénégalais yooyu ñu ne nekkuñu ci fichier bi ñu mën a vérifier ñu ngi ci fichier bi te wane ne mu ngi ci fichier bi mooy wane ne kon ñu nit kon amoon nañu dëgg ci conseil constitutionnel bi nga xam ne dafa jalgat ci yoon te loolu lañ doon seentu ci moom mm-hmm. kon amoon nañu xel bu rafet ci xel bu dal ci bañ fay dem rawatina nag bañ fa demee en tant que républicain ñu ne kon nag nañu teg sur la table yi nga xam ne moom mooy problématique yi nga xam ne ne moom la Sénégal yi di déglu te di ko xaar mm-hmm. ngir mu mën a assurer à ce que ñu mën a dem ci des élections euh, d' accord waxtaane woo leen euh, report élection yi waaye kaw Karim Wade candidat PDS tam euh, waxtaane ngeen ko fa. waaw dafay normal ñu waxtaane ko fa ndax euh, bu ñu waxee suñu kaa ñun donte wees na ñu mën a wax kaawu Karim Wade mhm. parce que comme ni ñuy waxee xam na ñu jafe-jafe yi nga xam ne am na am na ko fa PDS amoon na kenn ku leen représenté mais terewul ñun ñoo wax ci ci président te suivre na lépp mais terewul ñuy àggeewaat ko ngir mu xam ne ne Euh, la ñu jalgati ak wala conseil constitutionnel la mu jalgati nekk na loo xam ne baaxul ci image yu Sénégal donc mm-hmm. loolu yëpp nekk na loo xam ne ni ñu ko fa waxtaanee mm-hmm. noonu lañ fa waxtaanee tamit kaaw Diomaye noonu lañ fa waxtaanee kaaw tamit yenn maire yi ak yeneen détenus yoo xam ne tey jii jàpp nañ ne seen place nekkul ci biir prison mais nekk nañ ñoo xam ne tey jii waroon nañ mën a delluwaat ci seen biir njaboot rawatina Diomaye ngir moom it mën a baas campagne comme say mën a comme say camarades mm-hmm. euh, processus électoral bi ndax dal na seen xel waaw tey jii du ñu wax ne ne dal na suñu xel ndax euh, ñàkk euh, ñàkk jaar ci yoon moo waral ñun ñu génnee ñu ci processus électoral bi ñàkk jaar ci yoon moo tax ñun ñu génnee ñu ci élection yi ndax dañoo dañoo dañoo salfaañe suñu ay aka ak yelleef te kaw ci loolu bu amee tamit du ñu toog rek ne ne euh, ñun dañ def nañ ñu ko kon dañuy toog seetaan ndax dafa nekk loo xam ne bu ñu seetaanee ëllëg képp koo xam ne fal nañ la ci processus bii day nekk un candidat boo xam ne mënoo am beneen légitimité boo xam ne da nga koy dafay nekk lu naturel. Mhm. ndax bañ la koy def dañoo xañ ñu bëri ñoo xam ne amaana la ngay yóotu ñoom moom la ñu bëggoon ni yow mais nañ leen ko xañee dëppoowul ak yoon ndax bu fekkoon ne yoon la dëppoo def naa kon kenn duñu dégg kon tey jii mënuñu taxaw ne am nañu am nañu kóolute ci processus électoral bi mënuñu taxaw tey jii ne am nañu kóolute ci bii xam ne moom la ñuy jox. mënuñu taxaw ne ne tey jii lépp ñoom lu ñuy def nekk na loo xam ne lu ñuy mën a dëggal la wala am nañ ci kóolute donc loolu moom wax wax du yàqu la. Mm. ndax looloo tax ñu xeex ba léegi te dinañ continuer combat bi ndax collectif bi dana daje ci ay ay fan yi ñëw ngir gën a mën a waxtaan seet fan lañ koy yóbbu ak naka la ñuy porté waatee combat bi ngir sénégalais yi nga xam ne amoon nañ kóolute ci ñun xam ne ba léegi. donte ne génnee nañu mais ñun bàyyi ñu leen xel bàyyi ñu leen benn yoon ndax ñuy continuer di topp seen ak sax yi def hmm. ba ba fu mu munti yam d'accord collectif bi day faral di wax ni am na un million ci ay électeurs yoo xam ne ku moyul du ñu voté lu tax ngeen wax hmm. loolu waaw li tax ñu wax loolu mooy euh, tey jii ñun ba ñu ñëwee andi suñu ay clé de contrôle maanaam caabi mi nga euh, clé USB yi nga xam ne moom la ñu conseil bi moom la ñu direction générale des élections joxoon ndax ñoom ñoo ñu joxoon seen ay clé nañu bu leen ko changé dugal leen ci seen ay parrainage ngeen andil ñu ko loolu bañ ko defee gis nañ ne ñoom lañ ñu joxoon amoon na ay jafe-jafe ndax looloo tax ñu ne ñu tey parrainage yi ngeen yi ngeen ñu jox gisuñu ko ci biir fichier électoral hmm. kon boo ñëwee tey ñu ne la lu toll ci million ci doomu aadama gis ñu leen ci fichier électoral bi bu boobaa di nga ragal ndax buñ leen gisoon tey jii xëy na waxtaan bi duñ ko am ndax boobaa soo may wax da nga naan candidat à la présidentielle ngay wax. Mm-hmm, mm-hmm. ndax tey man bu ñu li ñu ma génnee ci wàll boobu ko dugaloon ma validé plus de cinquante et un mille parrainages. Mm-hmm. kon lool lañ ma xañ tey mais bëgg naa nañ ma ko xañee tey ñi nga xam ne ñoo ma naroon yóbbu ci loolu ngir ma mën a bokk ci élection bi ñoom ñu bañ leen xañ seen axax yi nekk te bëgg naa bu ñu demee di voté ñoom it gis na seen tur kon loolu la ñu nekk tey di topp loolu laa tuddee un contrat moral boo xam ne bépp leader am na ko par rapport ak ñi nga xam ne ñoo la joxoon parrainage te tey jii képp ku ci noppi di processus bi jàppal ne da nga far ndax te far googu nekkul loo xam ne sa avantage la ndax bu ñuy lu ñuy yore yëpp bu ñu la ko këppaloon amaana tey jii di nga perdre un million de bois bu fekkee ne ñooñu nekk ñu fichier électoral bi te amul njëriñ. Mm-hmm. d' accord euh, seen audience bi ak président Macky Sall euh, bëri woon euh, coow lool am na ñoo xam ne sax dañoo désister ne ñoom demuñu. kan mhm. moo nekk initiateur boobule audience. waaw audience boobu comme ni ma ko waxee woon sànq rek nekkul loo xam ne lu ñu demandé woon ñun demandé ñu audience bi ñu gisee li ñu metti ñu taw di ko ñaxtu wax ko fépp ci lañ ne ki kenn ki nekkoon ci suñu biir muy soxna Aminata Touré ne ne baax na ko ñu bind njiitu réew mi ngir lii ñuy ñuy ñuy joytu fu ne fu ñu dem ku ñu waxal dañ naan ko woo njiitu réew mi nga xom kon bu fekkee ne dañuy dem di boole nit. Mm-hmm. day baax tamit yow ka ngay boole. nga yónnee ko bataaxal ne ko man lii laa lay reproché moo tax ma dem di boole fu ne. Mm-hmm. ba ñu defee loolu. boobu ñu ci processus électoral bi amaana xëy na mënoon nañu recevoir ñu toog waxtaane seet ban solution lañ ci am ndax boobu en deux jours conseil constitutionnel mënoon na revoir suñu ay parrainage te du yàq dara ci processus mais def ko dafa bàyyi ba mu jàll ba liste bi génn gannaaw xaar na ba mu jàll liste yi génn mu dooguñu woo foofu nag la ñenn ci ñun ñoo xam ne jàppoon nañ ñoom jàpp nañ ne ne ñoom dara du dara du leen jaral ñu dem jàkkaarloo njiitu réew mhm. mais loolu ci seen sañ-sañu bopp la mhm. tey jii am na parti bu ci nekk suñu biir dafa taxoon ne moom du dem jàkkaarloo njiitu réew mi ndax bugg euh, bugg ko def mais terewul ba ñu demee ba lañ lañ fay wax xooluñu parti moom mais dañu gis njëriñu askan bi ndax ci biir parti am na ci candidat boo xam ne tey yoon teg na ko loxo te jàpp nañ ne ci askan bi am nañu yaakaar ci moom kon war nañ mën a de cause ci président ne ko kat ni ñëpp candidat yëpp wàccee ci suuf di di di di xeex. Mm-hmm. ngir mën a am dara ngir gagné élection yi kon kooku yi war nañ ko jox tamit moom it chance mu génn moom it dem rencontrer prés euh, euh, euh, nu mu tudd Sénégal yi ngir wax leen loolu leen di proposé ngir ñoom it bu ñu amee kóolute ci moom xëy na mën ko mën ko mën ko dénk réew mi kon bañ fay dem ci turu Sénégal dañ fa demee. Mm-hmm. bañ fay dem dañ fa dem ci turu Sénégal yi nga xam ne jii gannaaw yàlla ñoom ñoo taxaw ni ñoom ñoo tax ñu taxaw fii di wax. di wax ci seen tur ndax dafa am contrat moral boo xam ne moo dox suñu diggante ak ñoom. Mm-hmm. kon dafay aajo suñu jàkkaarloo président nga xam ne ne am am nañu occasion boobu loolu yëpp ñu mun ko waxtaanee ba waxtaanee ci yenn maire yoo xam ne yoon teg na leen loxo boobu ba léegi te jàpp nañu ne seen place nekkul nekkul ci prison ndax bañ leen di fal ngir ñu jiite seen ay maire du pour que ñu nekk ci biir prison di ko di ko jiite kon ñooñu pourtant xaw ma leen. dégg musuma leen dégg wa il bi ñu amee jafe-jafe laa ko xam. Hmm. te wax nañ ko président il a été très sensible à cela ba incha allahu rabbi nee na dana nañu wax ak ñoom ak seen ay avocat ñu def li ci war ngir def seen demande de liberté provisoire et que bu boobaa moom dana xool ak waa gouvernement ñu bañ a opposé ci lool te rafet nañ ci njot te hmm. lam ñu wax dana ko topp ndax communiqué bi mu génnee ci sens boobu la demee ba am rafet nañ njort ne tey liñ ñu doon xasee démb naan waruñu fa dem. ak euh, gàcce la ci ñun ndax saago ñox lu nekk ñu wax ñu ko dina gis ne loolu dana jural sulu Sénégal suba jàmm joo xam ne tey jii ak euh, ñenn ci ay borom kër yoo xam ne dinañ mën a dellu ci seen njaboot te euh, ci suñu jotaay bi nga xam ne amoon nañ ko ak ba chef de l'État moom moo ko waraloon. Mhm, d'accord kon est-ce que mun nay wax ni yéen est-ce que leen dëgg ci ñi nga xam ne ñoom dañoo bañoon a dem ci audience bi. waaw moom koy dëgg bi moom leer na peñ ndax ñun la ñu fa taxoon yóbbu du suñu ay mbiru bopp te ñi bañ a dem. seen ay mbiru bopp tax demuñu ndax ku ci nekk da nga naan lim ma defa tax duma dem jàkkaarloo moom. Mhm. ñun nag seetuñu luñ lim ñu def wala lu ñu deful ndax man mënoon naa taxoon ne man Mouhamed Ben Diop dañ ma génne ci fichier électoral bi ci waxi conseil constitutionnel kon du ma dem jàkkaarloo Macky Sall ndax moom moo leen fa teg. Mhm. mais dama ne damay dem jàkkaarloo le président de la république en tant que citoyen chef de parti am ak mbooloo bu topp sama ginnaaw. ngir mhm. mën a ñëw toog jooy jooyanti ñooñu seen ay kàddu ci moom ngir lépp lu mu ci mën a def mu def ko ngir apaiser le climat social ndax tey bu ñu fi woote woon te xuloo xeex ak ak euh, loo xam ne amaana dana xaw a yëngal réew mi moom du ci mucc ñun duñ ci mucc tamit. Hmm. te bëgguñu dëkk bi yegg foofu kon jàpp nañ ne démb lañ doon def dafay nekk ci loo xam ne day gën a yokk tey kaaraange ak dal gi nga xam ne moom lañuy séntu ci réew mi te am nañ ci yaakaar ne ne incha allah rabbi yàlla danañ ci d' accord %e euh, euh, tey %e ñu daal di leen recalé :fra yéen ñi nga xam ne dañ leen a xañ %e candidature :fra ci élection yi naka ngeen fas yéenee dem [r] demee ci élection :fra présidentielles :fra yile waaw xam nga comme comme ni nga ko waxee ñun ñun recalé :fra nañ ñu hmm. nangul nañu ndogalu suñu borom boobu %e wante gannaaw yàlla dogaloon na ñu am si ñaari kuréel yu ñu bokk bu ci njëkk mooy collectif bi nga wax noonu mu nekk loo xam ne am na action yoo xam ne prévoir nañ ko def au-delà du vingt mooy période bi nga xam ne moom lañ nekk nii donc lu ñuy waxtaanee la ci fan yi nga xam ne mu ngi ñëw terewul euh, ñun ku ci nekk ci sa formation politique ku ci nekk yaa ngi nekk di waxtaan ñun ñu mel ni ñun ñu ngi waxtaan ngir mën a seet an ban anam la ñuy mën a participer ci élection te participation dina am wante bu ñu fàtte te loolu damay wax Sénégalais ñu bàyyi ci xel ci collectif bi ñu yore nii maanaam am na doole goo xam ne yor na ko tey jii ci askanu Sénégal ba waaw maanaam fu ñu fu ñu jublu fu nekk buñ ci amee yéene bu boobaa loolu mën na basculer loo élection yi te lañ buñ ko fàtte lool. Mhm. terewul nag ku nekk nag ci sa coin am nga sañ-sañu waxtaan ak sa formation politique waxtaan ak ñi nga xam ne tey ji candidat yi jàll sa di la solliciter ngir mën a waxtaan ak yow ñu mën a seet bu fekkee ne euh, euh, maanaam. déggoo dana mën a am ci wàllu programme ñu seet ndax liñ ci mën a am incha allah. d'accord donc euh, pour parleurs yi yéen a ngi koy ak yeneen candidats yi nga xam ne ñoom dañuy bokk. Mm-hmm. waaw loolu moom wax dëgg feex la ñu ngi ci bopp ba léegi mm-hmm. euh, ndax euh, boo ko deful tamit ñoom ñu ngi ñu ngi ñëw di la seet si mm-hmm. ñu ngi ñëw di waxtaan ak yow ngir mën a seet nu ñu mën a ànd ak yow pour mu nekk loo xam ne tamit euh, lu ñu leen di mën a nangul la wante bu boobaa buñ seegee rek incha allah dinañ ci am suñu ay kàddu. Mm, pas-pas ku muy jàppale ku mu fas yéene ànd. waaw loolu moom xaw na xaw naa tel ngir ñu wax ko. maa ngi ciy waxtaan ak sama bureau exécutif. mais mm. incha allahu rabi bu amee rek dina nekk loo xam ne dañ ko yaatal su fekkee ànd dina am. d' accord Mouhamed Ben Diop Rewmi FM mu ngi lay sant di la gërëm. maa ngi sant di sant seen ay auditeurs te di leen jaajëfal. d'accord di fàttali bokk nga ci collectif des recalés à la présidentielle yaa jiite itam coalition Pass Pass. jërëjëf coalition Pass Pass.